حمدا لمن يفعل كل ما أراد بقوله كن فيكون في المراد salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziyaare di leen bala te di leen baal di ñaan suñu borom boo leen jégal di am bu baax di ànd ak yéen seen jotaay yi nga xamante ni moom lañ fas yéen di ànd yen yéen set ci heure bii ni vingt deux heures Euh, te nag ñu am gan gu tedd macha allah muy ku xam-xamam rafet loolu ñu euh, rafetlu ko trop mu nekk fële ca Maroc muy Serigne Fallou Ndiaye euh, mu fas yéene ànd ak ñun ci benn thème boo xamante ni mooy actualité muy lan muy koor ak ay atem kon xam naa dañ leen di wax rek ni Serigne Fallou mi bu ñëwee dina. développé leeral incha allah ci thème bi nga xamante ni moom lañ ko jox bu paree nag dinañ ubbi ligne bi képp ko am question ci loolu noonu nga daal di koy laaj kon sëñ Fallou xam naa bu fekkee ni yaa ngi dégg mën nga jàll si eh, nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki daara ji. mbokki jaamiatu Ramadan. muy université Ramadan. ñu ngi ziar ki leen di ziar mooy seen mbokku sa Fallou Guèye di leen ziare fii ci Maroc dëkk bi ñuy wax Rabat di leen dokkeel ci weeru koor wi di ñaan saa borom defal ñu ñu bokk ci ñi koy yeggale te buñ ko yeggale mu nangul ñu di leen ziar yi ñëpp jiital ziar bi sunu jëwriñ yi nga xamante ni moo ñu tax a dugg ci biir. biir groupe bi bokk ci liggéey bi muy sëriñ Fadilu Mbàkke ñu koy ñaanal borom subhaanahu wa taala sàmm ko mook sëriñ Mamor ak mbooleem sang si nekk ci biir groupe bi yépp nuy naa ñëpp ci gox yi fasantikoo yi di wax rek naa rab rabbi bi chahri ramadan chahril amaani wal muna wa faydan ñu fas yéene ñëw ci tomb bi ñu joxoon pour ñu laayante biir ci jàngalante ci xam naa ay boroomi xam-xam rek ñoo fi ne watan li kulli ibrin si adab abiri naxwin wa arudin wa adab donc naa ngant kon mbooleem kuy dégg sun kàddu gi rek njuumte goo xamante ni dab na ci yoon wi ci ay njuumte rek ñu ko koy tuubal bu ñu mënee dimbali mu defaral ñu ko te dogal ñu ngàntub doomu aadama ñoo ngi koy sàkku ci moom bismillah ñu ñëw ci tomb bi kon fasaani waxtaane weeru koor ak i atteem waxtaane nag ñu bëgg koo tër ci ay tomb ñu bëgg koo tër ci ay tomb mooy danan wax ni lan mooy koor danan wax ni kon lan moo di koor bu noppee ci lan moo di koor dana ñëw ci surutul wujub surutu wujubi siyaami ramadan mooy sart yi woor di war ab jullit ba bu dajee ci moom ñun ko yow woor de war na la boo ko defee war na la boo ko defut war na la waaye sart yi tax nag mu mën a wér muy surutu sixati sawm tëje ko nag atte ya atte yi nag buñ ko waxee mooy xeeti koor yi ak seeni atte ku dog ci koor njuumte luy atteem ku dog ci koor tay ko luy atteem ku dog ci koor ngir ngànt tax mu dog li ateem eh, kon nag bismillah weeru koor de xam nañ ni lislaam ñoo ngi ko daganal weeru koor bin gàddaayee jóge màkka ñëw ma madinatul munawwara ba am fa ñaareel bi at ñaareel bi at ca mag ca madinatu munawwara lan gàll ci jullit ñi ñu war a woor weeru koor ci ndigalug suñu borom gum jox yonente bi alayhi salaatu salaam pour mu jottali ko julli ñi nga xam ne ni màkka du barab boo xamante ni tàlli woon nan fa yaatu woon nan fa yaatu gun ma na woore waaye ma Madina leen gën a yaatoo gën fa firiku moo tax nag koor day am sart yuy tax mu war ab jullit sart yu dajee ba tax bu dajee ñu ni war na jullit bi sart yooyu nag la ñuy njëkkee ndax bune ne koor mooy lan lan moo di woor woor de buñ ko doon leeral rek ci leeralinu sariya dan naan mooy ki téye boppam lekkul naanut uh, muy bànneexu biir bànneexu awrata mu yar ko diggante fi fajar gi xare ba keroog jant bi so mm-hmm. léegi sart yi tax nag koor war ab jullit boroom xam-xam yi tënk nañ ko ci juróom benn muy day nekk ab jullit gannaaw bi mu nekkee jullit mu jot gént bu ne gént mooy mu mesure mu mesure gannaaw bi mu am am xel muy tax mu mën a taataan ba xàmmee ak ràññee li muy def ñetteel ba mooy bu dee jigéen mu set ci deretu wasin baadaratu ngant muy mbërëk juróomeel ba mooy mu am wér-gu-yaram gu mën a attene woor juróom-benneel ba mooy mu nekk ci biir réewam ba biir dëkkam ba nekkul ab tukkikat wala sax mu nekk bitim réew waye tukki ba nag daa mat ñeenti fan ba ëpp ko lool jëm kaw tukki ba daa ëpp ñeenti fan jëm kaw kon nag yooyu sart lan doon wax ni kon jullit bi moo jiitu nekk ku majeur moo ca topp waaye amum xel moo nekkoon ñetteel ba bu naa ne amee amum xel kon ki amul xel mooy ki yàlla dogal xel ma rëcc ñu gën koo miin ci waxinu wolof win gën a miin ci pénc bi ñu koy tuddee ab dof ngeen baal ma ci baat bi waaye ku xel mi rëcc ku wéradi am xel boroom xel mu wéradi kooku kon xam na ne xel newu fa kon koor waru ko waaye nag li koy koor di wara di ndax xel ma dafa nekkut waru ko ci jamono jooje ndax tawat gi ko dal moo tax waru ko waaye bu tawat jooje wéree donte ay ati at la ko dal day fay day fay at yim toogoon yëpp wéradi ko ndax ñàkkug wér a tax ñun ko may nan la yeneen fan yu bokkut ak fan yii fa iddatun min ayaami nuqar fa iddatun min ayaami nuqar yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra foofu nag wuute borom xam-xam maaliki yi am wuute ci koo xamante ni ati mukallafam bi mu koy am dafa nekk ku wér waaye gannaaw bi mu wéree ab diir mu woor benn weer rek wéra dem xel daat koy dab wéra dem xel dab ko ñu dem ba màgge lool ba màgget dooga dooga nag wéraat te xam na ni màgget ay organam am munta woor euh, mbokk yi foofa werante am na ci ndax dana fay la weesu woon ak du ko fay foofu la masalaam wuute ba amee ndax daa màgge boobaa te ku xas ba màgge sopp nañ mu joxe mudd keneen ki yàlla dogal am xelam téewulu wut mooy ku xëm ki xam bu fekkee ni limu mu lu néew la ñaari waxtu la xam ximarti wala ñetti waxtu la xam ximarti laata dogo jot suñ borom dogal xel bi del si kooku kon li des ci bis bi war na ko woor euh, te du fay bis boobee waaye ki xam nag bisub lëmm ki xam bisub lëmm kooku day daal di fay ki xam bisub lëmm day fay ki xam bisub lëmm day fay ki xëm weeru lëmm da koo xëm di nelaw bu nu waree mu yewu day fay weer wi lépp kon bu xamee lu néew lu mel ne ay waxtu rek ci bis bi mooy li gën a néew ci bis bi kon bu baax naan ko moom day continuer kooram ma jógee fa nag ci xel moom ma doon wax ñëw ci ki tukki ñu ni woor dafa bokkoon ci sàtt yi da nekk sam dëkk mu doog laa war boo tukkee kon wàcc na la waaye tukki boobu ma doon wax nag day fekk ñu tegal ko ay sàrt muy ñett ba ñeent bi ci jiitu mooy day fekk tukki ba mat na soixante douze kilomètres ci distance ñaareel bi tukki ba yéene woon nga dog ci biir tukki bi avant fajar bi jot ñetteel ba tukki ba matul ñeenti fan mooy ñaar fukki julli yu mat du la fa fekk matul ñeenti fan mooy ñaar fukki yu mat du fekk te fa nga tukki ji nag amoo fa soxna sooy dalloo foofa kon yooya xooluñu ci tukki bi nag coona ak ñàkk coona moo xam donte volu avion nga jël sax wala métro yi nga xamante ni coona ba reetu ci léegi teewul tamit sart yi bu dajee rek te tukki ba matul loola mën ngaa dog koor jëmmi atte yi nag attey koor day delluwaat ci xeeti koor yi xeeti koor yi juróom benn xeet la dafa am woor goo xamante ni daa war ñu gàll ko ci loosu mukallaf bu ne am koor goo xamante ni sunna la yonent bi sallallahu alayhi moo ko joxoñ bokk te nag li war yàlla joxoñ ko am boo xam ne sopp suwaa nit ki la bu ko defee day am tuyaaba ju yaatu bu ko deful nag benn sanction du ko ci fekk am koor goo xamante ni dañ koy tudde koorub naafi la ma ne ndollin la ci koor yi ndax bu ëllëgee bu point yii manqué ñu mën a tànn tibb ca point yee mën koo mottali am koor goo xam daa araam nag ku ko def bàkkaar moo la cay fekk waaye tuyaaba sax la fa fekk am koor goo xam dañ koo sib kon boo xoolee juróom benn melokaani koor da ko am foofu par nag mooy weeru koor wooram daa war yàlla gàll ko ci kaw mu kallaf yëpp yaan seeni yee mat na kooku moom daa war waaye koor gi ma naan la sunna la mooy woor bisu tam ñarit bisu tam ñarit mooy tam xarit lekk cere xii suba bisu tam ñarit koor gi ma naan la dañ koo sopp mooy ñeenti weer yi yàlla woor maal woor leen kadalika muy diggante rajab ak sul qaada sul hijja muharram mooy weeru rajab ak weeru digg ak tabaski ak weeru tamxarit yooyu weer dafa bokk ci weer yi yàlla jox worma ba doon ca tere sax xeex ak xare ak tur ci deret yooyu la ñuy wax koor gu nu sopp kooru naafila nag mooy kooru coobare yi nga xamante ni yaa ko tànnal sa bopp di ko woo di ko woor chaque jour ni ki taamu bisu altine gu jot di ko woor ba alxamis gu jot koor gi araam nag mooy woor bisu korite ndax bisu korite day iit te iit nag yawmu aklin wa surbin wa itq kon ni ko sëriñ bi jàngale ca xutba ga kon ku ca woor moom bisu korite am nga bàkkaar ak woor bisu tabaski gi lépp lépp lépp tabaski liñ ci sopp nga woor ko yow mi aji rend ci gàtt bi mooy nga woor diggante fi ñuy julle ba fi ñuy rendee xar mi nga dogoo ca res wax kooku mooy koor gun araamal mooy woor ci bisu korite wala nga woor tabaski lépp lépp bunu sib woor goo xam dañ koo sib bañ gi def moo gënal masabu limaamu Maalik moom la ñuy wax kooru sawmul wisaal mooy koor diirub jamono mooy koor gun dàppati rek te wa dog booba koor dan koo sib ci masabu limaamu Malik mooy sawmul wital woor rek tëw dog ak ber yow bisu ajjuma rek nga ber ko moom kese di ko woor wala ber samedi kese di ko woor te jiitaloo ci ajjuma ga alxamis baa nga na caa tofal samedi wala samedi ga jiitaloo ci ajjuma bëgg caa tofal samedi bu fekkee da ngaa jiital ajjuma teg ci samedi loolu kenn du tere samedi ga wala nga jiital ci ajjuma ga alxames teg ci ajjuma kenn du tere loola waaye ber ko moom kese woor ko nag la ñuy daw ko tere kon mbokk yi wax naa kon ay atte ci xeetu koor yooye koor gu ne ak atte ak wan xeet la lu dañ koo bañ gi def moo gënal masabu limaamu Maalik moom la ñuy wax kooru wi wisaal mooy koor diirug jamono mooy koor gun dàppati rek te wa booba koor dañ koo sib ci masabu limaamu Malik mooy sawmul wisaal woor rek tëw a ak ber yow bisu ajjuma rek nga ber ko moom kese di ko woor wala ber samedi kese di ko woor te jiitaloo ci ajjuma ga alxamis baa nga na caa tofal samedi wala samedi ga jiitaloo ci ajjuma bëgg caa tofal samedi bu fekkee da ngaa jiital ajjuma teg ci samedi loola kenn du tere samedi ga wala nga jiital ci ajjuma ga alxames teg ci ajjuma kenn du tere loola waaye ber ko moom kese woor ko nag la ñuy daw di ko tere kon mbokk yi wax naa kon ay atte ci xeetu koor yooye koor gu ne ak atte ak wan xeet la balaa nit ki mën a woor weeru koor nag da ngay gis weer da ngay gis weer gis weer nag addis ba moom daa wax lu leer suumu la wax na ngeen woor li ru'yatihi woor goo leen teg ci gis waaw googu nag moo indi werante bu yaatu ci borom xam-xam muy waaw gi nekk ci suumu muy waawul jamaa ga borom xam-xam bi ni waaw googu kat waaw aam la waaye du waawul xaas dañ ko taamin dañ koo taamin mooy dañ koo aamal mboolem umma islamiya bépp fooy mën a nekk bu weer wa feeñee rek ña ca des ñëpp na woor am na ñu dégg noonu am ñu dégg ne déedéet waaw gi waaw gi dañ koo tax siisal ñi nga xamante ni dañoo am tawxiidul mataalia dañoo bokk ab jant bokk ay weer tawxiidul mataalia loolu nag moo gën a yaasu mooy waaw ga dañ ko aj ci ñi nga xamante ni dañoo bokk ay weer ndax buñ demee ci imaamu Shafii lee ma njëkk wax ni waaw ga waawul jamaa gi dafa concerné fu weer wi feeñe ci adduna bi fépp fu mu fi mën a feeñe jullit ñëpp war na woor ca loola ndegam gis nan ñu leen ko dëgëral te nu ñooña wax jooju mu ngi dellu ci waxi limaamu Ahmad ibnu Anbal muy xanaabila yi loolu lan atte woo ak xanafi yuuni mooy limaam masab abu anifata ñoo ngi tegtaloo ci laay ji wa ann ummatukum ummatan waxida wa ana rabbukum faabudun ñoom nee kon yàlla moo ne kon umma bi umma waxida la kon ñoom loolu mooy seen dalil ba ni ixtilaaful mataale amut wuute ay weer amut benn weer la waaye ñu nangul leen ngànt nag ñoom ñu gëm loola ñu nangul leen ngànt waaye ñoom tamit nan am yaatu dëng nangul ngànt ñi wax ni tawxiidul mataali moo am ixtilaaful mataali moo am mooy wuute ay weer ñoom ñoo ngi teg seen delluwaay ci hadiisu Kurayb Kurayb ñi wax ni ixtilaaful mataali daa am ñoo ngi delluwaat ci hadiisu Kurayb Kurayb ab saxaabi bu mag la radiyallahu anhum dafa jóge saam bis ñëwoon madinat munawwara fekk fa abdullahi ibnu abbas mi foo réew xeet wi Euh, ni ko ñun de woori nan ndax dañoo gisoon weer wi bis sàngam mu ni ko ndax gis nga ko Abdullah ibn Abbas ni ko ndax yow Kurayb bu gis nga ko mun ko waaw teg naa ko bët gis naa ko waa Saam ñi ci ëpp gis nañ ko ba Muawiya joxe woon na ndigal sax ñu dog Abdullah ibn Abbas ni ko waaw waaw de dàquma ko gëm naa ko lool da ngeen a def la ngeen jàng ñu def ñun tamit li ñu jàng li ngeen jàng mooy boo leen seenoo gis wori ñun nag ñu jàngaat bu nu seenoo gis wori bu nu seenoo gisuñu ñu bañ a wori ñun nag seenu nan danoo gisut kon ñun duñu wori kuréy bu ni ko xanaa dooy doo doyloo Muawiya ibn Abi Sufyan di magum saxaaba kon yow mun ko mu Muawiya lam saxal ba wariloo waa Saam waaye nag Muawiya daa jànge ci yonent bi ma jànge ci yonent bi te ñoo bokk lu nu jàng bu jëfe lam jàng na ma bàyyi man tamit ma jëfe di ma jàng te diggante Saam ak Madina nag benn continent la muy as Asi Asi xam ne Syrie tey xam ne Syrie Syrie Saam mooy siri xam ne Syrie ak Arabie Saoudi sorentewul kon weer woowee muy ñi wax ni réew mépp bokk bépp bokk benn weer am ñu ni déedéet àdduna bépp bokkuñu benn weer kenn ku ne am nga delluwaay foo dëgërlee say wax ñu nangu leen ko kenn ku ne ñu dogal ko ngant euh, bu ñëwee ci koor nag ay atteem bi ci jiitu mooy da ngay gannaaw bi weer feeñee ba nga gis ko da ngay yéene yéene ni da ngaa fas yéene woor waaye yéene ji nag da koy ràññale ni da yéene woor weeru koor da ngaa woor weeru koor day nekk muayyana da nga koy ràññale ni weeru koor waaye boo ne damaa fas yéene woor rek daal di sànni tax ràññewul lan ngay yéene ban xeetu koor ngay yéene kon yéene ji moom da ngay yéene muayyana lu ràññeeku waaye ràññale ne weeru koor fas yéene ko woor waaye tamit fanaanoo ko tamit fanaanoo mu bay yita mhm. fanaanoo ko waaye teg ko nag ci yaqiinan bañ ko teg ci taraddudan aw sakkan doo ko teg ci tik sàkk wala ci déng-déng kon yéen ci moom da ngay ni weeru koor laa fas yéene woor waawante ni kon ràññe taayin ko ràññale tab yiid fanaanoo nga ko avant fajar gi di xar waaye ñetteel ba da ko tabax ci kaw ak kóolute gu wér ni weer wi fee seeñ na benn yéena nag doy na ci koor gu ñuy toftale mooy kooru weeru koor gu am bis yëpp day toftaloo benn yéene dong bu doy na ci yóbbaale géew bis te des yëpp boo ne fas yéene woor weer wi ba mu jeex sa benn yéene boobu doy na sëkk jërul nga koy yeesalaat waaye sopp na bisu sax nga yeesalaat ko boo ko yeesalaatu tamit dara du la ci fekk li fekk ndok ndok amul ci diggante bi ndok ndok mooy tawat gu daba gu la dab ba tax wóoratoo wala tukki gu la dab ci yoon yi ba tax wóoratoo wóoruk biir tukki ba wóoratoo wala tawat ga tee na laa woor kon boo wéree ci diggante bi bay jokkaat fa nga yemoon wala ngay sof fa nga yemoon dangay ngay yeesal nag kon léegi yeneen yéene bisu sa da ngay yéeneel boppam ndax foofa dog dog daa am ci diggante bi wala jigéen gu ngànt dab ci diggante bi ba tax mu dog bu ngànt la jeexee ba mi jël siwaat chaque jour day yéene waat yéene ci bés ak ci yéene mooy benn farata bi ñaareelu farata bi mooy aar boppam ba lépp lu yàq kooram du ko def moo tax suñ tubaani woon koor ñaari farata la am siyaamuna lahu faridataani bila ziyadatin wala nuqsaani niyatuna wa kaffuna an muftirat li wajihi baaqin mut'imin bi tayibat loolu ñuy jàng tasawudu si koor jàng nañ ko muy ñaari koor rek la ñaari farata la koor am yéene woor sàmm sa bopp ba benn lu yàq koor gi doo ko def ñetti sunna nag la am ñetti sunna la am gaawee dog waxuma ndogu ndogu ak dog bukkut gaawee dog tàndarma lañ ci gën a taamu boo ko amee muy ñett lu tool daal lañ ca taamu lu tool bu dee ñett moo gën ndax benn tool na waaye daa tuuti ñett ca gën boo tëbee ci ñett dem ci juróom boo jógee ci juróom dem ci juróom-ñaar waaye daal na nekk lu tool boo amul ma ñetti góoxi ndox mën na koo wut ba juróomi góox bi ci topp yéexe xëdd yéexe xëdd bu ne yéexe xëdd balaa fajara jot nga xëdd te fi fi ngay xëdde ak fi nii salaatoo na mat luñ mën a jàng suuratul mursalaat muy juróom fukki laaya kon daal war ngaa mën a bàyyi diggante fi nga xëdde ba fi ni salaatoo war naa dox diggante bi fanweeri minutes gën gaa bari gën gaa néew nag quinze minutes waaye lekk ba ni salaatu ngay njëkkante naan àggagut ci asalaatu xayru min nawm loolu moom ji koy fekke nag jawet la euh, mbokk yi jóge nañ ci loole kon muy yéene jóge nañ ci sunna yi kon muy teel a dog ak yéexe xëdd ba ca ñetteel ci sunna yi mooy wattandiku bépp wax ju ñaaw wala jëf ju ñaaw ju xañ tuyaaba ci ci yow yu bari nag dama koy bàyyi noonu bu ko defee ñiy laaj après ñoom biir laaj yi ñoom danañ ci dugal yu baree bari Eh, tontukat yi laaj yi ñu ngi fi ñoom yëpp dana ñëw tontu ko incha allahu taala benn par benn waaye <clears throat> ñu ñëw ci buntu liy tax nga sañ a dog koor te boo ko dogee jam-jam kenn du la jam kenn du la sanctionné ci benn anam ndax da la permettre nga mën a dog te permettre boobu ñu la permettre nga mën a dog dafa am benn situation bu taxaw ba tax situation boobu il faut que ñu wutal ko solution ñu xool situation yi tax nga dog bi juróom ñaari situation lay doon sept situation lay doon mooy danga tukki te ku tukki waxtu mu rànke ñun la kon jarul ngay woor fa man kaane ko maridan naw ala safarin alquran aka wax baa nga tawat tawat goo munta attana woor tawat a ñaar la tawatug dëkkaale ak tawatug gan tawatug gan am na waaye tawatug dëkk am na tawatug gan mooy boo xam ne dañ koy faj mu wér léegi tawatug dëkk nag mooy koo xamante ni daa yàgg ci nit ki dëkk ak moom mënta wérati wala sax day tane rek waaye wér pëleñ du jàppandi lu mel ni tawatug dëkkaale ku médecin yi xool ba ni ko mën a moom xamal nan ko ni deux heures de temps bu naanut moo ngi teg boppam benn danger boo xamante ni moo ko yóbbee boppam kon sharia day ubbi beneen bunt mooy danaan ko doo woor waaye nag sa ñàkk a woor gi da jox ñu woor ay ndog da ngay jox ku woor lum dogoo da jox ku woor lum dogoo mooy benn liibar liibar gramme liibar ak neuf gramme liibaru ceeb ak neuf grammes wala nga def ko liibaru mburu ak neuf grammes ci mburu yaa xam ceeb la yaa xam mburu la ku ëmb tamit mooy troisième bi ku ëmb ragal ni lim ëmb bu wooree bakkanam xaale bi ci biir mën naa loru dan naan ko dogal sa koor gi ngir sauver bakkanu xale bi wala moom mi ëmb sax bakkanam nar na caa des dan naan ko woril ngir sàmm sa bakkan quatrième bi mooy kuy nàmpal ragal ni bu wooree doom ji mi nàmpal du am lu mu nàmp ñu ni ko kon dogal koor gi tey nàmpal cinquième bi mooy ku màgget ba ay organam mënatu a woor kooku da naan ko dogal koor gi waaye bëgg nañ nag bu ndogu jotee bëgg nañ rek ci yow bu ndogu jotee nga am ko gàddu ndogu ki ma doon teg mooy kooku ma waxoon ki am xiif gu metti ba mar gu metti gu mënta dékku ndax médecin yi ñoo ko ko wax ni ko deux heures de temps mënoo toog te lekkoo wala mënoo toog te naanoo ak septième bi muy fin bi mooy ku nu forcé ku ni ko boo dogul ñu rey la wala boo dogul ñu rey sa doom kon booba na daal di dog koor ga ngir sauvé bakkanam ba bakkanu doomam mbokk yi wax naa kon foofa léegi ma ñëw ci ku dog koor ku dog kooram te kenn sant ko ko ki dog kooram te kenn sant ko ko mooy dafa dog koor gi ban war ko sanctionné wax naa la kin may permettre mu dog kooram te kenn du ko teg ay sanction kii nag daa dog koor bi moo tax ñu koy teg ay sanction yoo xam dañ koy sanctionné ki dog kooram ngir juum daa juum daa juum lekk baa mu juum naan danaan ko fayal benn bis fayal benn bis rek yam ca ki nga xamante nag daa dog kooram ngir tay taylu la def moo ko tay dem ni tëppét koor gi añ añam bu baax ndax daa war ba bëccëg gis ceebu jën bu xonq xel ma ne ca rek mu daa di sant jaw baa daa cay tataf rek bu baa kon loolu mu def moo da koor kon daa xotti war may koor danaan ko kon fayal benn bis boobee ñaari weer euh, wala nga na jox soixante miskin soixante miskin soixante ñu pauvre nga ñoom soixante yi nga jox leen li ñuy wax mudd mooy liibar am ñu ko tudde kilo liibar am ñu ne boo bëggee génn ci werante bi def ko ñaari kilo werante ba daal moo nga ca kilo ak liibar am ñu ni liibar la ak neuf gramme am ñu ni deux kilo la boo bëggee génn ci werante gi def ko deux kilo benn yoon <clears throat> mu jox ko soixante miskin borom xam ne nee na mën ngaa daje dajale loolu lépp jox ko benn miskin rek mu amal ko njariñ lool wala nga séddale ko ñaari mis waa ki def nag loo xamante ni dafa def takarrurul iftaar mooy dafa def lu waral dog gi ñu ko kafaara war na la mu dem defaat ko dan ne ko yow ku joteeg sa soxna bëccëgu weeru koor te tay ko da fay benn bis ñaari weer mu daal di jëm joteeg soxnaam ñaari weer nag war ko ca bis boobee ci bëccëg la ko def ñu demaat ba ngoon mu jotewaat ak soxnaam beneen jote xam nga kon moom def na ñaari dégâts ci benn bis boobaa danaan ko rek benn kafaara rek moo la ciy fekk bu fekkee ci benn bis ba la ko def waaye bu fekkee da ko def nag ci bis yu bokkul da koo def tey ci talaata gi xeet suba ci àllarba defar ko danaan ko talaata ak atteem àllarba ak atteem talaata daa añ añam bu baax ñun ko benn fan boobu nga añ sa añ bu baax te tey ko ñaari weer la mu xeet àllarba defar ko kon bu baax danaan ko àllarba ñaari weer la talaata ñaari weer muy ñeenti weer ci saw loos wala soixante miskin soixante miskin yoo war a jox kenn ko ne ñaari kilo ci talaata soixante miskin yoo a joxaat ñaari kilo ci àllarba ki boo ko boolee mu jox la cent vingt yoo xamante war nañ leen a jox kenn ku ne muddu mudday ne euh, loolu kon leer na kon ki dog ki dog tay ko dañ koy sanctionné sanction yooyu ki ko tëyut nag kenn du ko sanctionné mbokk yi wàccu nag wàccu bala moo yàq ko daa fekk nit ki moo ko sabablu nit ki moo ko sabablu mooy moo dugal loxoom ci biir looju wàcc wa génn kon boobaa day fay benn bis rek day fay benn bis waaye du ko kafaara euh, yu bari na dama koy bàyyi xam naa ndax laajkat yi fuqahaw yi ci biir danañ laaj gën a laaj yaatal thème bi waaye bu fekkee wàcc moomu nag da doon génn ba ci am lu rëccaat delluwaat ca biir delluwaat ca ca biir boobaa la jot a delluwaat ca biir dañ koy atte atteb ku lekk ba atteb ku naan ñu ngi ko kon koor gi dog na fi may daanale mooy li ñuy wax an masala bu jara laa biire mooy kuy dog ku doon séq ak soxnaam ci fajaru weeru koor far ci biir séq gi mu dégg ñuy salaatu mu dégg ñuy salaatu danaan ko gaawal nga coupé foofa jote gi séq gi coupé ko coupé ko mooy arrêteel jote gi bu ko arrêté ci sens nag dem sangu ji ndegam yéene woon a fanaanal wala mu yéene woon benn yéene pour koor gépp dara da ci fekk day daal di woor rek continuer waaye bu fekkee daa wéyale nag daa wéyale bu wéyelee bu wéyelee dagg ko boobaa danaan ko kon li nga def yaa ko tey dan lay sanctionné benn bis boobu nga wéyelee jote gi ñaari weer nga koy fay wala nga soixante miskin nga jox leen kenn ku ne muddu hada wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima yal nañu sunu nangul ñu sunu koor te nangul ñu jaamu yàlla gi te defal te may ñu ngërëmal sunu boroom ci darajay Seexuna si Ahmad Bamba Xaadim Rasul seen mbokk Oustaz Fallou Guèye fii ci Rabat ci Maroc ci ndigalu Serigne Fallou Mbacké eh, di sunu sëriñ di sunu kilifa dëgg yàlla bu ñu santee def rek mooy li ñu war ñoo ngi koy sant di ko gërëm ci yiw mu ñu boole ba boole ñu ci groupe bi ak ñiy liggéey ci groupe bi nuyu nañ mbokk yëpp ndokkeel leen la ma waxoon ci njëlbeen day tëjawaat ku ci gis lu ci damm jëfi doomu adama du manqué du ñàkk ay manquant waaye lu ci manqué ngeen mottali ñu ko yax yéen na mat ñun ci sunu manqué lañ doon jëf ngeen mottali ñu ci seenu mat dumtum bi riayatillah macha allah sëriñ eh, Fallou Guèye wala oustaz Fallou Guèye eh, <laughs> maanaam eh, li mu kawee suñu njort sax nag dafa ëpp wallahi lansi mi xam-xam bi seet na sell na te it leer na te organisé wu na maanaam ni nga ko ni nga ko ni nga ko tanzimé rek dafa dafa am solo lool sax macha allah kon xam naa dañuy ubbi rek ligne bi bu ko defee képp koo xamante ni am nga ab laaj nga dugal ko te ñu bañ a génn tamit thème bi ñuy waxtaane nii euh, kon xam naa ñu ngi ubbi ligne bi rek bu ko defee ñu ñëw ci laaj yi. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah Serigne Fallou man sama laaj bu njëkk mooy ndax. lele biñ war a def ki nga xamante ni wóorul war ko def moo xam kuy nàmpala wala euh, loolu noonu ndax sañ na ko jox koo xamante ni wóorul salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki université ramadan di jéggluwaat fuqahaa wu ak muftuun yi nga xamante ni ñoo yeyoo def fatwa ndax ñoo am ahliya bi am kafa bi am mahara bi ñu ngi leen di dogal ngant yéen tamit di ñëw ci laaj bi ma njëkk a déglu muy borom wàcc wi nga xamante ne xel mi daa teey ba mu wàcc koo xamante ne am wàcc da koo not xel ma teey ba mu wàcc kooko dara du ko fekk ca wàcc ga jéggal nañ ko ko baal nañ ko ko mu pënd aw yoon ñooyam ab sàmm bay sàmm jur pënd bay jub di dugg ci gémmin ga moog pënd koy liggéey ci sunguf ca usine cere ya ak pënd koy liggéey ci ciment di ko natt ñoom ñooyam yooyu yëpp jéggale nañ ko ak ku xëyee janaaba te sanguwut waaye mu xëyee wàlla yéene naaje sangu jóge woon ci joteeg boroom këram wala jóge woon ci joteeg soxnaam naaje sangu yooyu yëpp dañ koo jéggale baax na dañ koo jéggale waaye bu tayee wàccu ko nag day fay ab bis maa ngi déggaat ab laaj beneen laaj dama jàppul nag ko laaj waaye borom laaj yi moom xam naa danañ topp seen laaj yi kenn ku ne ki wax ab chauffeur la mu nekk kon mu di mu safar ku taqoo tukki mu di mu safar koo xam ne fu mu toll day tukki nekk ab safar boo xam ne day yabe barab jëm barab te diggante barab bi muy yabe ak fa mu jëm mat na soixante douze kilomètres boobaa dañ naan ko saa yoo yabee rek euh, yaa ngi tukki lu mat soixante douze kilomètres te fa nga jëm amoo fa soxna kon bu la neexee man ngaa dog sa koor gi bu la neexee mën ngaa dog sa koor gi ndax coono yi tukki bi moo tax ñu lay dogloo sa koor bi moom sax na ci fuqahaul malikiye yi ni mu di mu safar day dog kooram buñ waree nag mu fay bis yooyee mu amoon wayaas mu fay ko wallahu taala aalam asalaamaaleykum ma ñëwaat ci laajub ki sàggana fay weeru koru daaw ba weeru kooru ren fekk ko ñu naan ko man farrata fi ramadan ku sàggana fay weeru kooru daaw ba weeru kooru ren fekk ko fi dan naan ko dafay woor weer wii teew ren weeru deux mille vingt quatre ndax bàyyil xel ne weer koor nag dafa nekk lu nu tënk ci ab digg dafa nekk zamaanun mu dayiq waaye nekkut zamaanun mu wassee dañ koo tënk rek ci ab weer kon booba dañ ko kat fayal euh, wooral weer wii ba weer wii jeex nga fay bor yële nga wee weesu woon weeru eh, boru daaw ya te saa yoo dee fay nag sanctionné lan dañ lay teg sanction nga joxe muddu dañ lay sanctionné nga joxe muddu wallahu taala aalam mi doon laaj laaj ba am solo boobee yéen waa université ramadan ñu ngi leen di jaar ki nga xamante ni sarti yi waral koor daje na ci moom ba pare wóorut ndax day am bàkkaar waaw waaw day am bàkkaar lool sax kay day am bàkkaar kay lool sart yëpp bu dajee te wóorut day am bakkaar am na bakkaarub xotti ndigalub boroomam subhanahu wa taala wallahu taala aalam mbokk mi mu ngi laaj ki am ndigalub dokkooram ki am ndigalu te jële ko ci ab sëriñam dib sangam wa dañ lin jàng ci fiqhul maliki de mooy ab sëriñ bala moo dogloo ab taalibeem koor kooru ngàtt nga lay doon kooru ngàtt nga mooy koor koo du farata koor gu dul farata ab sëriñ sañ na koo dogloo ab taalibeem ak ni ki waajur ni mu ko sañee dogloo ab dong ab doomam ndax buntum ñeewantu la waajur gis ne doom ji daa taqoo di woor koor ngàtt ngee ba jeex mu ñeewantu ko ci takko koor gi ndeysaan ba dogloo ko koor gi ndax ñeewantu loolu waajur sañ na ko boo demee ci ma yebal la ci téere boo xamante ñoo ngi naan ko muqaddimatul muqaddimatul izziya boo demee danañ wax ni wayjur akub sëriñ sequl seexul murabbi danañ dogloo koru ngàtt nga ñetteel bi ki sañ a dogloo koru ngàtt nga mooy borom kër gu soxla soxnaam soxna su waroon koro ngàtt nga borom kër sañ na ko dogloo koram gi wallahu taala aalam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk mi lii laaj ni mbokk la boo xamante ni moom daa tënk wooram ci dëkk daa tënk wooram ci dëkk ba mu tënk ko ci climat woor nag moom dëgg-dëgg tënkuñu ko ci dëkk tënkuñu ko ci climat dañ koo tënk ci bu weeru koor bi ñëwee fekk ko fi bakkanam nekk fi sart yee tax mu mën a woor daje ci daa war a woor képp ku sart yi tax a woor daje ci yow daa war a woor képp ku sart yi daje daa war a boo nekkoon ci dëkk yi gën a tàng lu mel ni Arabie Saoudi fuy tàng daanaka dëkkum montagne muy dëkkum doj moo la gën a tàng kon niñ ko misaale ci Tamba Arabie Saoudi loolu leen daal ñoom tamit dëkk ba la tax mu tàng moom Arabie Saoudite day dëkku montagne Tamba la ko tax a tàng day xeer ma bëgg laa wax la Tamba ak Dakar ña ca Tamba la leen war ña ca Dakar loolu la leen war tàngoor ak seddaay kenn du ci compter koor ay sart lañ tëral comme daje ci yow koor war na la wallahu taala alam kon ma ngoog sang bu baax baa ngoog kon di leeral wax ju am solo tënk bi daal mooy kenn kenn sañ te dogloo weru weeru koor gu yàlla santaane gàll ko ci jaam kenn sañ ko dogloo nit koru ngàtt nga daal laa doon tëral ni koru ngat nga daal am nañu ko sañ muy ñat waaye mu kalaf ni yow yàlla gàll ko woor weeru koor gàll la ko kenn sañ te dogloo sa moroom weeru koor ci ñaari mu kalaf yo xam woor da leen a war loolu laa bëggoon a wax ndeysaan moo tax ma indi woon kooru ngàtt nga sañ na koo dogloo waaye kooru farata kenn sañ la koo dogloo ki la koy dogloo dañ ko koo sant yow mi koy dog dañ la ko sant te laa taata li maxluqin fi maasiyatil xaaliq sant ñu jaam mu lay teralu yàlla teg ci saw loos ndax boo sa borom ay wéet soxna si ñu ngi lay jaajëfal ci sa laaj bu am solo boobu maa ngi dégg sànq sa audio bi yaa ngi wax lu am solo ban heure la ñuy ndogu jant bu so la wax jant bu so nag ñun nag jamono jii dañoo nekk Maroc euh, xamuñu heure Sénégal yéen ñi nekk Sénégal yéen ñuy gën a miin heure boobu kon xoolal calendrier yooyu ca Sénégal ban lañ joxe dog ñun ñu ngi fii ci réew Maroc dañuy daanaka kon ñun pour ñu mën laa wax foofu heure bëgguñoo juum wala ñu waxe bakkan wala ñu wax ci loo xamante ni dañuy indil jafe-jafe ëllëg buñ tëddee ci bàmmeel ndax gàgganti masala bu teguwul ci xam-xam mën naa jural borom lu yaatoo yaato ci jafe-jafe wallahu taala alam ñoo ngi Maroc daal xam na ne heure bu bi waaye heure bu moom jàpp ñu ko waxtu bi ndax néewu ñu Sénégal bopp moom di laaj laaj boobu mbokk maçon boobu ñu ngi lay waat lu yaatoo yaatu xam naa ne sa mën a sa minébar bi moom xam naa ne ab sekkeen la wala ab njawen waaw loolu mu def de sariya sant ko ko moom loolu mu def sariya sant ko ko yow nag dara du la ci fekk wala taziru waziratun wisra uxra wa an laysa lil insani illa ma saa yow de dara du la ci fekk ndax sant ko ko waxoo ko ko moom moo def li mu def Serigne Saliou Mbacke daana wax ni ku munta boole tool yi ak koor gi bàyyil ma fi tool yi te wooral ma koor gi wallahu taala alam waa soxna si jërëjëf yal na yàlla defal ñu tawfiq tan delluwaat ci jàmm ca njaboot ya fekk ji leen ci jàmm xam naa ñun ñoo ngi rabaa xaw ma nag yow foo nekk ci Maroc waaye ñun ñoo ngi rabaa waaw ñun ñoo ngi rabaa ñu ngi lay siyaare waat lu bëree bëri kon yow ñun ci koorug noos gi lan bokk ñu ngi uh, koorug ren gi moom ci Maroc eh, macha allah alhamdulilah léegi moom laa doon wax ndogu ak dog bokk ndogu ak dog ndogu ak dog waxoon naa ko da ngay dog doog ndogu da ngay dog ba pare doog a julli timis ñun nag fii ci Maroc euh, ñoo ngi dog ñoo ngi dog dix huit heures trente et un dix huit heures trente et un lan dog tey dix huit heures trente li tax ñu dog ko mooy da ngay dog ab tuuti da ngay gis tey danoo dog ab diir ñu doo ko nodd danoo dog ab diir ñu doo ko nodd waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Serigne Fallou Gueye macha allah euh, xam-xam bi rafet na sell na euh, tontu bi tamit jaar na yoon te wax dëgg fa yàlla tegu na ci xam-xam bu leer a leer leer comme ni ko sëñ Ibrahima ñi ngi waxee muy bu ku la dégg ngay wax rek dañu xam ni kii kat euh, wax dëgg fa yàlla borom xam-xam la kon macha allah am nañ satisfaction totale ci émission bi am nañ ci euh, lu kawe tamit suñu njortu kon ñu lay ñaanal suñu borom taxawu la bu baax gën laa dëgëral euh, sàmm la aar la te say bébét yi nga am. ci ci ci ci àddina yëpp suñ borom defaral la ko ndax xam nañ say mbébét yëpp lu baax lay doon lu lu lu lu loo xamante ni euh, askan wi dinañ ci mën a jariñu kon jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm baax xam naa ñu yeewi la balaa muy gën a guddi ndax nga delluwaat ci tey jërëjëfati waaye sant nañ baax a baax kon jërë ngeen jëf mbokk yi waa université euh, Ramadan kon seen mbokk suñ fàndu gi ni ngeen àndaloon tey di sàkkatu xam-xam rek nekkul borom xam-xam sax far de sàkku tey ñaan yàlla defal ñu taw tawféex te muccal ñu ci bakkan yàlla bu bakkan am wàll ci liggéey bi yàlla lépp di yàlla yàlla buñ ci gis suñu bopp mukk jërë ngeen jëf kon ba beneen yoon incha allah ñu ngi leen di tàkku ba beneen yoon xam naa ñu bàyyi fóori yi ci des yàlla xaw na leen may tuuti jot ñu man ñoo wuutu ci fataawaa yi tontu masala yi incha allahu taala wallahu taala alam sëriñ Fallou sant man la bu baax yow mi boole ci liggéey bu mag bi sëriñ Fallou Mbacke salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki université ma Ramadan maa ngi yoree siyaare euh, sëñ Fallou sëñ Fallou Guèye sama turandoo sama sama sëriñ mm, maa ngi lay siyaare bu baax a baax euh, wax dëgg teelu nañ émission bi fi mu tàmbalee ba ba fi mu ñëw am na solo lool te itam dolleeku nañ ci bu baax a baax a baax a baax mel ne ne lees war xam ci koor la ca ñàkk lépp andi nga ko ci anam nga nam gën a gàttee ak nam gën a leeree question yi tontu yi euh, wér na lool wax dëgg Euh, li ngeen séntu ci yéen daal daara nii nit xam naa waa kër gi mën na leen bett waaye nit ñi nga xam ne ñoo nekk ak di jonjoo ak xam seenu bëgg ca xam-xam ak seenu nangoo liir xam na nañu yéen moom li ngeen fi wax rek euh, am na maanaam li nekk ci yéen moo ëpp foofu li ngeen gaaral fii nii wax dëgg yàlla suñu borom sàmm leen te defal leen mboolem ni ngeen di bëgg ni ko suñu soxna naa waxe ba ngeen mën a euh, liggéeyal sëriñ bi ci xam-xam jërë ngeen jëf sant